amul ku def lu ko neex moom kenn loo xam ne loo na ko bàyyi naa bañ na ko bàyyi naa bañ loolu mooy dëgg ma ne kenn mënul jiite population yi ci loo xam ne neexul leen loo xam ne day lor population yi di leen rey indi ay cancer ay feebar kenn du ko nangu fii naa bañ environnement sain la waa bañ soxla moom la waa seen soxla moom la waa République soxla moom la Sénégal soxla donc gouvernement du Sénégal président du Sénégal le peuple de Bargny a dit non à la centrale à charbon non kon le message est fort la police est là police dana rendre compte loolu mooy liggéeyam mhm. les autorités sont là

Marcos, Messi, Mané, Mané. Murgulo grande. Neli dá na era. Ni dá na era. Kuma também ba xale bu tuuti. Mu ne murgulo grande manam dañu bëgg dëkk dañu bëgg mari. Loolu kuf kuf leen juróom yërëm leen. sama wattu. Loolu maa ko wax. Jaajëf waay jaajëf waay. Ndax Dakar mbay mi li mu wax loolu moom mooy atte xale yi lu gënoon grandir mooy ku juróon yërëm leen. li des mooy man xam ngeen ne duma politicien bokkuma ah, benn parti politique xam ngeen ko man bëgg moom moo ma tax a ñëw fii sama wàll nag mooy ñëpp ñoo xam ne jàng nañu ci xam-xamu maam yi d'accord central bi. ñëpp ñoo xam ne jàng nañ ci xam-xamu diine islam mu Tuuba mu Tiwaawan mu feneen d'accord ñu ci central bi ñëpp ñoo xam ne dem nañ ci université catholique muy réseau bi muy Popenguine muy feneen d'accord nañ ci kon nag na ñëpp àndandoo ñu génne xam-xam yi wane ne lii bu ñu fi ñëpp bu ñu bay ñëw ëllëg merci c'est le coordinateur man maa ko nag il est très bien parce que dañu ne dañu oote nag ban ñu jub wala ñoo bopp mais c' est apolitique politique laxu ko. géej gi dina leer dañ doon wax ne nag ñi ñee def yi non ay politique la laxu seen gannaaw c' est archi faux ay bonne volonté ay citoyen lambda ñoo organiser ñëw fii tey. télé dina leer Barham mooy suñu coordonnateur. il va donner les mots de bienvenue. voilà. léegi orateur yi ba xam ne ñëw G100 ñëw sera là représentant de Mignam à la personne de Idy Gueye sera là Mamadou Ngom Deya Xaal sera là Ibrahima moom moo nekk takk aar jéer yi Fadel Wade Seydou de Sisi Touré Fatou parce que nag central bi daa moom waa si seen culture yéen a daa waxoon ne yéen a ko moom central bi man bokkuma si yéen a ko moom mais central bi yéen a nga xañ Fatim Sack bu ñëwee fi dina ko leeral. Modou Diouf c'est là au nom des habitants de Sédhiou. Cheikh Tidiane Gueye secrétaire général de la C3D. Daouda de Gueye. waaw parmi Kost Kifa. elle est conseillère mais aujourd'hui elle va parler au nom des femmes transformatrices Wahelkom. il y aura aussi les médecins comme le docteur Tal qui sera là pour nous parler. Il y a des conseils qui vont faire un bloc pour venir ici parler à la population parlementaire parce que yéen yéen leen femme te de la Fadel sera ici dina am ñu ba parce que cause du rek cause tout le département pour parce que Mamel aussi li ñu mais maître El Hadj Diouf professeur Malick Gueye ak ñeneen ñi nga xamante ne ay si kanam tuuti tuuti tuuti lépp lu leer. sur ce dañuy bàyyi euh, le capitaine mais capitaine bi tey daa am ñaar dafa am ñaar nee na ban mooy ko xam nee na ban mooy ko xam dëkkul feneen ban ñu la dëkk. le capitaine c'est là là Saaro yooyu feneen wunu Saaro kaay Saaro Saaro kaay wax fii ba gars yi kale Saaro comme kookoy mm-hmm. Ibrahima Diagne jërëjëf Saalum Kam attends DJ may ma tuuti bii la mooy noonu de kaa wax ak fii maintenant dañoo utiliser ay tappale pour signer un protocole mais qu'il sache que Bargny dit non conseil yaa ngi ils sont aussi responsables maintenant les ah, jël kenn conseil Nous, comme ça officiellement ñu le protocole devant la presse nationale et internationale nous ne nous adressons pas au maire nous nous adressons au chef de l'État le président Macky Sall c'est lui qui définit la politique dans la nation, pour lui dire que Barnier est contre la centrale à charbon, Barnier est contre le charbon. Maintenant, ça c'est une force citoyenne. Elle n'est pas politique, c'est une force citoyenne. Nous, on est à l'écoute du président Macky Sall. Nous, et nous sommes capables de monter en puissance. c'est le premier signal que nous adressons au gouvernement que nous adressons à l'État, que nous adressons à la banque, à tous les pays qui, sont, qui ont financé la centrale. Nous leur disons que nous sommes contre. Nous sommes pour les énergies renouvelables. Nous sommes pour les énergies vertes. Le charbon ne peut pas être propre mais nous représenter le C3D nous représenter la commune je voudrais dire que ici solennellement le C3D ne s'est jamais réuni pour désigner des gens devant les représenter C3D nous sommes réunion désigner ay nit mais comme les ba les lu fa am ñi dem leur profil ne répond pas leur profil ne répond pas dama ne dama ne dafa am délégation